laqil lisaani waxlulan minhu al-uqad waj'alhu dhaakiran wa shaakiran abad waj'al kalaami raashidan wa murshidan wa fikrati nawwir wa qalbi arshida anta allazi 'allamta luqmaana al-hikam falyahab bil mustafa khayra shiyam assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokk daara jawaat bi ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaara di beral nu yoog siyaara waa daara Hikmatul Yawmi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 tey ñu fas leen yéene andil ma bu amati solo te mooy wéyale li ñu tàmbale woon fan yi muy special tabaski tey ñu andi tomb bu am solo boo xam ne nii eh, jullit bu nekk war na ko setantal te jotli ko itam mbokkum jullitam ndax bu ko defee kat tiyaaba jum ci amee da nga am junni toll te du wàññi dara moom ci tiyaaboom loolu mooy lan mooy woor bisu Arafa tey la juróom-ñeenti fan tey la juróom-ñetti fan astaghfirullah tey la juróom-ñetti fan ci zilxijja maanaam ci weeru tabaski kon suba la juróom-ñeenteelu fan ci weeru tabaski doon kon yow mu arafa bisu arafa yow mu nag bis bu rëy rëy la ci lislaam bis bu rëy la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye bis bu rëy la ci xeet wi kon jullit ñëpp war nañ ko bàyyi xel te bañ a rate occasion bu toll nii ngir mu yóbbaaleel ñu aw yiw kon ñoo ngi ñaan ku ko déglu ku nekk nga jottali ko sa jullit ku ko def ku nekk yàlla na suñu borom tabaaraka wa taala taxawu te yàlla na faj say aajo te ku ko def tamit jullit boo ko jottalee doonte kenn la bu fekkee ne fàttali nga amal na ko njariñ ba mu woor danga am lu toll ni kooram nga te du wàññi eh, ci kooram nga dara nga booleeg sa koor rawatina nag nga jox ko jullit ñu bare bare bare bare mbokk yi bi sallallahu alayhi wa aw xeetam ñaare dañ dul gudd fan moo tax suñu borom may leen ay occasion yu bari yoo xam ne dañ ci mën a màng aw yiw woo xam ne nii xeet yi ñu jiitu woon dañ ko daan màng dañ ko daan dajale ci at yu baree baree bare yu dul jeex ñu màng ko ci benn bis wala ci genn guddi moo tax yu baree bari ci ay xeeti e, promo suñu borom tabaaraka wa taala may nañu ko bis bii di bisu Arafa nag ci la bokk moo tax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ko daan woor te fonkoon ko lool soññe ci lu bari itam ay ahadis yu baree bari itam rot ci ci muslim ak buxaari yu waaye ñu tànn ci rek ñetti eh, ñetti ahadis yoo xam ne nii doy na sëkk ab soññe am na saxaabi yi bu ñu wax abi xataada al ansari radiyallahu anhu dafa wax ne dañoo masalaa ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam ne ko waaw lu tax nga fonk yow arafa di ko woor rek yow daal doo jël benn yoon bisu arafa ci di ko woor yonante bi sallallahu alayhi wasallam ne leen li tax ma koy woor kan mooy dafay far bàkkaari at mi nga génn ak at mi ngay dugg saa boo wooree bisu arafate sellal koor ga sellal sa yéene na la wóor sa bàkkaari at mi nga weeso woon suñu borom tabaraka wa taala effacé na ko bàkkaar yi nga defagut sax suñu borom tabaraka wa taala effacé na defu ko muy at mi nga jublu koo xam ne nag saa boo wooree bis bi suñu borom effacé bàkkaar ya nga weesoo ya nga jëm kon da ngay mujj doon koo xam ne ku set ci ay bàkkaar nga te yowmal xiyaam kat lafay fay sonal nit mooy bàkkaar rek eh, am na ci nit yàlla yi ko daan wax ne gannaaw suñu borom bu ëllëgee buy peese jëf yi ñaari balance lay jëfandikoo bi muy def yiw yi ak bi muy def safaan yi man ni ma koy lijjantee damay fexe ba fi safaan yi dem dara du ci tege nga xam ne bii def yiw yi moom lu ci dem rek mu daanu te loolu alquran la fa ma man saxulat mawaasinuhu fa huwa fi ayshatin raadiya man xafat mawaasinuhu fa ummuhu hawiya moo tax Eh, lu jar di sonnee la te jara te wattandiku yi tamit occasion yu mel nii di la raw hadis mooy an abi qatada an ansari radiallahu anhu anna suila an sawmi yowmi arafa qaal yukaffiru sana almaadiya walbaaqiya beneen xadis bi yonente bi sallallahu daf cee wax ne li sunu borom tabaaraka di goreel ci bisu arafa maanaam di leen mm, musal ci sawara wala mu leen di génn ci safara di leen yóbbu àjjana du ko def ci beneen bis bu dul arafa kon nga xam ne ni arafa bis bu rëy rëy la bis bu màgg màgg la itam euh, kon nag jullit ñi bu ñu maase woon def ko wala li ëpp ci jullit ñi def ko euh, lépp luñ ñaan suñu borom tabaaraka wa taala man dana ko def incha allah kon xat-xat yi ñu jàmbat ak yi ñuy ñaan ak ak lépp lu mën di doon rek suñu borom tabaaraka wa taala ñu si dimbali kon lu mata def la tey lu mat a euh, soññee sa mbokkum jullit la ngir mu def ko am na ñaan gu am solo nag guñ ci ñaan goo xam ne nii dañoo laaj yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko gan ñaan moo gën ci bisu Arafa mu ne ah ñaan gi ci gën di te man moom laay wax yonante yi ma jiitu woon moom lañ daan wax mooy laa ilaha illa allahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir illa allahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ñaan googu moo ci gën te ku ne xam ne ni jàppande na lool kon nag képp ko woor bisu arafa yendoo itam di wax lii incha allahu lépp loo dagaan suñu borom tabaraka wa taala la ko defal te it dana la faral say bakkaar at mi nga weesu ak at mi nga jëm kon nag ñoo ngi sàkku ci mbokk jullit yëpp ku ko dégg ku nekk nga jottali ko sa mbokkum jullit ndax lee bu ko defee ndax am na ñoo xam ne ni kat fàtte rek moo leen di jàpp waaye buñ leen fàttalee lu baax ñu jëfee ko fa dakkir inna faati dikra fa inna dikra tanfaul muminin loolu moo waral ñu koy def incha allah kon nag yàlla na suñu doon defal